safo di seetaan bus MTV senegal jaajëfal nañ leen bu baax si top bi ngeen di top seen bi comme ni ko waxe woon si debi vidéo bi inondation yi nga xam ne nag am Touba wax ne nag ñaari doomu aadama la ñu waxoon ñoo daal di faatu waaye tamit ndekete am na keneen ku sa yokkaat mu nekk nag lu doy waar koo xam ne comme ni ko waxe woon si debi bi rek ab responsable politique la mom nag moom lañ ne courant moko ko daal di maas nekk nag lu doy war ñak ñàkk dinañ si ñëwaat gën ko yaatal si yeneen xibaar mo ngi nonu batay nak nag si wàllum politique lañu dess man nañ ne li nga xamne nak nag di décret bi wo sénégalais yi 17 novembre si jongante tan ko ndaw rew yi dafa melni nak dat nay genn melni dal 17 novembre kon mbir ma lernam na dinañ dem say élection législative ngir mën a fàllal ñi nga xam ne nag ñoo nekk ay député fële sa assemblée nationale ginnaaw bu ko premier ministre wala président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay tase mu ngi noonu du ñàkk dina ñëwaat gën koo yaatal yaa ngeen jëf bu leen fàtte abonné bës ko la notification bi